Ablaye ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaara di baax ci liggéey bi di leen jaajëfal baax ak bis bu tedd bi nga xam ne ci leen di jaajëfal bu baax mbokk taal bi yëpp ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel chaîne bi Baye Baye Khadim TV mu mel ne ni nga ko waxee sëñ benn bànqaas boo xam ne mi ngi nekk ci commission éducation culture sous commission animation bi nga xam ne ñu ngi saa jël suñ si am ci développement doom fii ak suñu nga xam ne moo jiitee conservatoire national bi yëpp ak ñu ngi ko àndal ñoom sëñ Cheikh Fall ak ñëpp sëñ Ablaye mu mel ne ci li ñu laaj conservatoire national yaakaar naa turam ni ko déggee dafa coiffé lépp li nga xam ne mooy kuréel yi nga xam ne ñoo ayu ci axibaayil xaj yi sa diinul xaw yi ak section bu ñu mën leen saytu liñ koy defee mooy koy defee mooy at bu jot bu ñu jugee ne jàpp nañ ne ñun moom ndax événement yi nga xam ne mooy événement yi ne am gàmmu bu ñu fa jàllee ay majeurs yi Ahmadul Khadim yi daal di taxawal bu ñu jógee gàmmu daal boobu mooy sosaan moo tax chaque année bu ñu jógee gàmmu dañuy def réunion boo xam ne conservateur national leen woo woo kuréelu section yëpp ñu koy defee am ñu jot nag Joal ndax jëwriñ ji moo sàkkoon ñu koy defee foofu mooy jëwriñ ñi nekk Joal ñu ngi koy jaare bu baax mu mel ne bu boobaa ci dinañ def évaluation ci li nga xam ne moom lañ jàll ci année yi màggal ak gàmmu daal di woowaat kuréel yëpp nag kuréel gu nekk ñëw indil ñu li nga xam ne mooy sa programme annuel bi nga xam ne moom nga fas yéene déroulé ci année bi di ñëw bu ko defee conservatoire dana récupérer programme yooyu yëpp di ko saytu di ci def ay suivi yoo xamante nii dana fexe ba kuréel yëpp di respecté loolu ba mun egsee prestation yi nga xam ne moom la am lu mel ne Magal Daaru Xudoos tey gu nekk programme bi nga xam ne moom nga ñu présenté woon moom ngay indiwaat ñu saytu ko bu fekkee am na ci yoo xam ne war nga ko mën a jàng moom la dugal bu defee mooy programme bi nga xam ne moom ngay presté fii leneen li ci topp ñu waajalaat ko gàmmu bu ñu demee gàmmu ge ay prestation dafay amaat waaye ci kaw kuréel yi nga xamante ne nii ñooy presse ci màggal Daaru Xudoos bi ci la xool kuréel yi nga xam ne jàpp nañ ne war na noo mën a taxawee gàmm gi ci Barsendiou bi ndax gàmm gi ni ñu koy defee Barsendiou jë day am kuréel goo xam ne mooy jàng jësu am kuréel goo xam ne mooy jàng mooy bu am kuréel goo xam ne mooy jàng mu xaddimaat bi ci loolu nag ci fii la ñuy xoolee kuréel yi ma foofu. ñu jël kuréel yooyu bu ñu fekkee ñu taxawal ko waaye du tere yeneen kuréel yi ci bëccëgu gàmm gépp dañuy def ay prestation ba ci guddi gi bu ko defee barsen bi bu jeexee ci fajar gi kuréel national moo koy tëj comme ni nga koy defee fii rek ci màggal Daaru Xudoos xam ne kuréel national kuréel la goo xamante ne nii ginnaaw bi ñu wooyee section yëpp def ay test dañoo jël membre yi nga xam ne jàpp nañ ne ñoo gën a jàpp ne ci section yëpp ñu créé ko muy kuréel national 1 kuréel national 2 noonu la demee ci loolu lañ ko créé ci base boobu kon daal dañu Ablaye ci gàttal loolu mooy li nga xam ne mooy dox doxinu conservatoire national ci li nga xam ne mooy Ahmadul Khadim ñu ngi ko jël xawim loolu lañ ko nasee di ko doxe noonu te suñ borom bi ngi ñuy dimbali ñu ngi ciy am ay tawféex waaye liggéey boo gis rek du ñàkk loo xam ne chaque année nga gis ci leçon yoo xam ne moo lay poussé ngay mën a def ay amélioration loolu it ñu ngi koy bàyyi xel at bu jot fa fas nañ yéene liggéey ci wàllum njàng ku kawee jot lay doon ndax sëriñ bi ku bëgg xasida la ndax li koy firnde rek buñ koy dem di ziar yi muy kuréel national wala kuréel section yi gu ko ci ziar rek da gis cofeel gi mu am ci xasida yi ba boo koy ñaanloo sax moom day xam lii base kuréel ndax boo ko ñaanloo danaan la dee leen def ay répétition moom loolu rek lay wax nga xam ne ne kuréel moom loolu moo ko tënk muy répétition ca wax dëgg yàlla section yi at bu jot ñu gis ak évaluation goo xam ne ku dégg di nga xam ne ñu ngi ci répétition yi ni ko sëñ bi diglee. tey jërëjëf Serigne Ahmadou Ndiaye ñoo ngi lay sant ci leeral solo ko am bi nga xam ne kuréel national bi mi ngi koy dox waaye tamit ci animation yu am solo yi nga xam ne yéen a koy amee so waaye tamit wax nga ci pas ak pasteef ak jaayante bu am solo boo xam ne yéen a ngi koy jaayante ñu yàlla gën leen dool yi ay ndam gën leen kàttanal ba li nga xam sëriñ moom la sëriñ bi bëgg ci yéen mu am ndax sagu sëriñ bi ngeen ndax sagu sëriñ bi ngeen sagu yoon bi ngeen ndax tey bu ngeen fi newul woon sëriñ bi lay wuti ñeneen ñu ko jàngal waaye kon bu ngeen defee seen ay góorgóorlu ba mën a taxaw ngir di ko taxawee wax dëgg yàlla jant ak gërëm da di ñaar waaye tamit ñaanal leen day lu war

di wax alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alhamdulillah rabbil alamin barke cheikh amadou moustapha mbacke mohammed eh, maa ngi tàmbali di wax asalaamaaleykum mbooloo mi ci guddi tedd gi di ñaanal suñu bundu cheikhul khadim cheikh mouhamadou moustapha mbacke mohammed mu yàgg fi ànd ak wér ñu ànd ak ak moom liggéey ko ba ca kanam kan ba mu eh, ba mu ba lépp naal yi mu tef yëpp ñu ànd ak moom beneen bi tamit di di di di ñaan guddi gi luñ fi ñaan yàlla ko borom nangul ci barke Seydina Mohamed barke Cheikhul Khadim donc euh, day am mbégte di am mbégte ci ci ci ci ñaari yëf ñaari bunt bala ma dugg ci développement mooy euh, guddi gi li waral guddi gi mooy mooy mooy mooy sunu yaakaar tey ëllëg muy Cheikhuna Ahmadul Khadim ñibbiseem fii ci Touba. waaw mu ne mu nekkoon ay ay guddi yu méttee métti méttee métti waaye yàlla def suñu borom nga am dara dara tëw ko mu dimbali ba.

comité scientifique yi nga xamante ni ñoo ko ñoo ko ñoom lañ def comité de réflexion bi nga xamante ni moom la xalif général des mourides sëñ Mountakha euh, teg ci bopp bi donc ñoom daay def évaluation globale li nga xamante ni mooy centenaire bi loolu wax dëgg yàlla ñu ngi ci ñu ngi ciy am rafetlu di ci am euh, tawféex bu baax a baax a baax beneen bi yaa ngi may wax tamit laaj ma ci wàllu développement développement euh, Axil Bayit Khadim juddu na

ak moo tollook jamono tolloog ak mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoom ñëpp ku ci nekk dañuy xool li nga xam ne moom nga man li sa moroom man ak li nga manul ñu ànd ko di ko waxtaane di ko partagé ba keroog ñu fi jële doolu mu nekk liggéey boo xamante ne léegi bu am solo liggéey bu yaatu la donc boobu ba léegi ñu ngi si ñu ngi si dox di di di di si def ay jéego euh, xëy na dox bi yéex na waye euh, yalla mi dina tëwul euh, señ bi mom bëgg-bëgg mom dana am waye ñu ngi ci di ci def lu ñu mën ak lu ñu mënul waaw développement ni nga ko développement économique et communautaire euh, doon benn bànqaas boo xam ne sëriñ bi dénk la ko euh, yàlla dogal seen euh, mu bëggoon a ni ni nga ko bëgg a yaarale section yi maanaam liñ ci bëgg dëgg ndax yaa ko ci am wala gis ngi ci gis ay résultats euh, jërëjëf sëñ Kane loolu moom question bu pertinente nga ma laaj moom nga ma laaj ndax mille 2018 bi ñuy xamee ne développement dafa nekk lu bees ci daayira yi mën nga dugg daayira yi bare waaye section développement communautaire yaakaar naa ni ci am ni ci am barewul te loolu ca ca jamono mag ñi sëñ Mounou Moustapha moo ko fi initié woon ñëw ci sëñ Cheikh bi ñu jóge ci sëñ Cheikh sëñ Moustapha Mamet moo ko dugal ci biir daayira bi ak Baye Khadim donc euh, def nañ fi séminaire 2018 pour yëg pour pour euh, maanaam section yi ñu wër président section yëpp ñu woo leen fale ci kaw la def ak ñoom benn lël lu ñuy wax séminaire xamal leen lan mooy développement communautaire euh, juntuwaay lépp loo xamante ne lu jëm ci lan mooy développement communautaire président section bu nek wala ce représentant développement communautaire ba nek ci section ba jox nañ la ay jumtuwaay ay documents yo xamantene pour wane la lan moy développement communautaire. parce que du social du santé dafa nek lo xamantene ne lu lu lu pour jëlee fi ndël politique de développement ak programme. donc ñun xeyna bu ñu amul politique de programme de développement mais am nañu ay programme de développement moy lan moy fexé jëlee fi ndóol. te bare na ay bànqaas yoo xam ni bu buñ ko songee lu mel na euh, xëy na agriculture muy mbay xam naa ne dama lay bàyyi nga nga jëlaat beneen question bi loolu boo ci duggee ñu gën ci xuus bu baax a baax. waaw Serigne Modou ci euh, bi mel na ne lay laaj ba maîtriser ñu développement ku ne xam na ne social amoon na fi amoon aussi commission ñu gisoon ci lu mel ne développement dimbalante jàppalante xeet yu mel noonu ñaari ñaari yi nag xaw a jege lool te xaw a nuroo nan la ñaar yëpp mën a doxee te benn du gàllankoor morom si. Euh, sëñ Kane donc développement dafa nekk loo xamante ne moom li ma la wax du social. Nous avons beaucoup de développement nous nous comité de réflexion sur les grands projets projets yu mag yi nga la sëñ bi naal bëgg renforcement de capacité la avons xam banque euh, investissement yu investissement yoo xamante ne day tax euh, mbooloo mi mën am seen suñu ay autonomie defoon nañ ko fi ci ay at. jëloon fi benn capital jënd ay ay jiw bi ñu jëndee jiw yi euh, ñi nga section yi nga xamante ne ñoo soxla woon mbay nu nu def benn expérience jox leen ko fu ci nekk nga ñu jox la la nga la nga tollool ak sa doole la nga war a remboursé waaye bi ñu demee ba ci biir euh, jàpp naa ne nit ñi ba tey dafa sooxee parce que euh, liggéey bi dafa yéex te te te comprendre ñu dëgg dëgg dëgg lan mooy rôle développement waaw parce que ñun li ñu ci jublu woon mooy am suñu autonomie de semence moo xam te ne banque de semence lay doon ni banque di amee xaalis ñun tey jii nii capital boobu li ñu ci li ñu ci bëggoon mooy euh, ñoom bu ñu remboursé bu ñuy génnee capital ba remboursé ñoom duñ leen laaj xaalis bi ñu leen joxoon dañ ñu ko jox jiw bu ñu ko jiw ñun ñoo am suñu hangar di stocké bu ñu ko defee ci ñaari at bu boobaa dañ am suñu indépendance am suñu banque de semence bu boobaa section bu bëgg semence jiw bañ la lebal nga fay état bi sax amna amana na bu boobaa daf ñuy soxla pour ñu mën ko euh, lebal jiw mu ñuy fay ay ay ay traite donc lolu mo doon xalaat bi waye ba Euh, ba tey section yi comprendre ñu loolu liggéey boobu waaw. jërëjëf sëñ Modou. vraiment da nga nekk ci xam bu am solo. Mm. Euh, ni yi dem ci sous section a développement wàcc ba ci daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci biir yi séddale ko ci biir section yi ñëw former ay développement ci biir bureau yooyu fexe ba jàppale leen ñoom ñu liggéey nga xam ne développement bi day commencé bi doog a ñëw ci sous loolu loolu loolu sëñ kër dama lay dama lay ci tontu tontu bu gaaw moo di loolu def nañ ko ndax bi ñuy jëlee président section yi dem ci ñoom waxtaan ak ñoom ñoom ñu jël ay nit ñu wóor yoo xam te am nañu pas-pas am nañu pësteef ni ñoom ñooy ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo fay taxawal section boobu ñoo fay taxawal sous section boobu ñun information yi bu ñu leen jëlee wan leen wan leen fi ñu war a jaar ba mën a soqali section bi soqali sous section yi. def nañ ko defaat ko defaat ko waaye ba tey euh, ba tey dañ ci sooxee ñoom ba tey euh, liggéey bi yéex na ba tax na am nañu benn groupe de comité de réflexion boo xamante ni moom nañu moom nañu moom nañu taxawal taxaw nañ ko taxawal nañ ko sax loo xamante ni ay ñu ay lu mat juróomi nit yoo xamante ni seen seen xalaat euh, maa ngi nañ ci ci ci wàllu ay ay ressources naka nañu mën a def ba am ay jumtuwaay ak ay pexe yoo xamante ne daañu mën am am capital ay fonds yoo xamante ne kenn duñu ci tënk ay fonds propre lay doon ñu mën di joxe suñu ñax parce que leneen dara gënul gënul gënul gënul gënul yelloo ñu joxe suñu ñax loo xamante ne euh, di ko di ko doxal suñu biir moo xam ay ton tonti loo xamante ne dañ koy labalate di ko tourné boo xoolee Taïf Euh, maa ngi nuyu euh, de passage soxna Mooy Mbacke Mohamed moom Taïf ak euh, sëñ Dame wax dëgg yàlla ñu ngi Taïf moom moom mi ngi ci mi ngi ci bonne voie mi ngi ci yoon moo tax liñ li suñu li liñ doon def lépp lépp lépp mooy bu Taïf doxee rek yeneen section yi gis ñi Taïf doxale loolu buñ ko tasaaree jàpp naa ne dana wër biir Sénégal donc donc noonu daal nañu bëgg doxale beneen bi mooy ñu xool aussi naka nañu mën a def ba am suñu ay fonds propres guddi ñuy toll nii ñu ngi ci xalaat boobu di seet naka nañu mën a def waaw euh, développement communautaire aussi bu diaspora am na Euh, Moustapha Diang bu Côte d'Ivoire moo ko moo ko yore di Bara Sall département Bara Sall waaye ñoom tamit ñu ngi ci ñu ngi ciy waxtaan di seet yan anam parce que bare na ay ay ay ay ay ay euh, ay ay ay ay ay jumtuwaay yoo xamante ni buñ ci jaaree mën nañ am suñu autonomie financière yoo xamante ne bu ñu demee ba ca kanam te objectif bi mooy bu ñu demee ba ca kanam ba am li ñu bëgg xëy na jaayante événement sax jaayante dootu am taalee ko dootu amati. bu boobaa capital bu ci nekk département bu nekk dana génne benn capital tekk ci taabal ji ñu def suñu màggal jënd suñu ay suñu ay suñu ay équipement yoo xamante ne équipement yi moderne ci wàllu communication ci wàllu euh, bâche ak yu ak yu mel noonu boo xoolee nawet bi soxla nañu ay bâche soxla nañu ay pelle piqueuse soxla nañu ay tracteur te yooyu objectif bi mooy bu ñu demee ba ci kanam bu ñu amee li ñu bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy loolu yëpp war nañ ko am waaw waaw la xam te li ay nacelle yoo xam ne mooy yëkkati bâche yi nga xam te ne benn coono dootu amati mais il faut ñu am suñu suñu auto euh, euh, autosuffisance xam xamante ne financière boo xamante ne duñ ko jënkaane feneen ñun suñu biir ñooy jaayante pour mën a pour mën am liggéey boobu waaw waaw ci affaire agriculture. muy xeetu mbay. ndax yéen xalaat ci mbay mbay moo xam ne du tënk rek ci nawet bi kese comme ay ay semence ñëw na ñu jël gerte gi séddale ko ci nit ñi euh, yéen a xalaat ndax ñu mën a liggéey ci noor bi liggéey ci nawet bii di mën a mën a am ay meññeef ci yeneen i gàncax yoo xam ne du bokk ak mbayum dugub ak gerte kese lu mel mbayu maraîchage ay tomate joxutu ak yëpp yoo xam ne rek nit ñi ñu ngi koy soxloo di ko war a jëfandikoo donc euh, jërëjëf sëñ Kane loolu loolu si ñu ngi ñu ngi ciy xalaat commité de réflexion bi ñu yore nii ci fan yi ñu ngi def am nañ amagum nañ ñaari réunion en ligne yoo xamante ne ay borom xalaat yu rafet ñu ngi ci ñu nit ñi am pas-pas am pëseef ma ci ñoom yaakaar ñu ngi échanger di xool euh, bu dul bu dul bu ñu amul ndox nawet bi naka ni ñuy def di bay mbayu dër naka ni ñu mën a def mbayu jën. moy pisciculture nga xamante ta lolu euh li ñu am deug deug deug moy suñu suufu bop am am espace bu ñu amee espace daañu mëna def pisciculture di nap jeun ak ak ak la see top ci ay accessoires ak investissement la mais investissement yoy fa bari ay risques il faut nga nga def nank évaluer risque yi ak évaluer perte yi évaluer am le bari na ay conséquences yo xamante ne il faut nga évaluer ba la nga ci dugg parce que projet de développement programme euh, de développement développement mënoo ci tëb tëb tëb investir ci ay cent millions deux cent millions euh, nga yeewu mu daw ñaari at ñetti at mu mu sooxe loolu moom euh, dëgg dëgg dëgg yooyu yëpp dañ koy évaluer bala ñuy bala ñuy dugg ci dara daañ ko évaluer xool ko mais euh, jàpp nañu lii sëñ bi def nii ubbeeku ta ta tàmbali ko nii di ko ñaanal ñu am ci ndam bu baax a baax a baax a baax ñëpp duwul ci seen loxo ndax lii buñ ci génnee am na yeneen yeneen liggéey yu ñuy xaar ci kanam donc liggéey bi day wéy te sëñ bi moom bëgg-bëgg moom dana am incha allah donc dañ ko ci fekk ànd ak moom accompagner ko ci lool ñu ngi seet ay yeneen moyen ci ci ay xalaat naka la ñuy mën def bu nawet bi jeexee nañu mën def pour am bayu dër mais il faut que nga am suuf il faut que ñu am suuf te nit ñi nit ñi seen bëgg ñu am pas-pas mën a signalé wu il faut ñu ñu ñu créé na ay groupe yoo xamante ne dañuy bëgg bëgg bëgg bokk pas-pas ñu mën a bu dee bay bayu dër ñu ànd ko ñu ñu ñu ñu ànd ak ñoom bu dee war a dem ci ay banque ñu xool yan condition yan garantie li ñu mën jox banque pour mën ko démarrer comme ni ñu def Taïf parce que boo xoolee Taïf crédit du mutuel Sénégal moom la ñu fa yóbbuwoon bi ñu demee waxtaan ak ñoom ka ñu def ay euh, groupement GIE bindu ku ci nekk la la sa doon doolee may nga fas yéene rembourser nga inscrire actuellement nii bañ koy démarrer yaakaar naa bu ma juumul démarrer woon nañ ci ay 10 millions. ñu fay ko beneen at bi dem nañ ci 19 euh, millions dem nañ ba ay 34 millions yoo xamante xëy na euh, ay néew néew la perte yi mooy xëy na benn ñaar ñett ñoo ñoo ñoo am doole pour rembourser donc programme de développement yooyu la bëgg soqaliwaat seet yan mu ne na nga xamante ne daañu fa mën a jëlee ndoolu voilà. Euh, mu mel ne buñ ñu la déggee li nga waxee ci développement euh, doon na benn banque boo xam ne sëriñ bi taxawal na ko ngir bëgg fee jëlee ndool dañ la xawa ñew doole te ku yor mbooloo nag te bëgg ñëpp kenn ku nekk fa nga nekk nga mën faa dund dund bu ci ay te doo taalal kenn wax faaw nga taxawal lu mel développement léegi bëggoon naa xam ndax euh, commission développement bi nga jiite yéen yéen a ngi am ay relation ak yeneen i commission yi nga xam ne ñoo ngànk daay xibaar xadim lu mel ne social lu mel ne commission d' organisation lu mel ne éducation et culture ak mboolem yeneen commission yi nga xam ne ñu ci biir yëpp ndax yéen a am ay relation pour di bokk ak ñoom di am ay xalaat ak yan pexe la ngeen di jàppale ci ñun organisation bi euh, ni ñu ko doxalee ak ak euh, ak yeneen bànqaas yi mooy dañ leen di laaj seen xalaat ñoom parce que ñun mënu ñun dañ leen moo ñun dañuy accompagner dañuy gunge rek ci ñoom si seen bëgg-bëgg ñoom duñu du ñuy ñëw rek créer ay projet ay ay programme de développement imposer leen ko déedéet dañ naan yéen lu ngeen bëgg bu ñu waxee ñoom lu ñu bëgg ñun ñu xalaat ci saytu ko euh, seet naka lañ koy doxalee mais dafa fekk pour cent ci bëgg-bëgg tay tay tay nii nii nii ñu war a développer def ay programme am ci réussite faw nga nga jaayante ak banque te te bu la waxee nga dem créer ak banque fond ñu laaj la ay fonds de garantie te loolu ci risque yi la waaw donc taaxil bayti xadim xëy na euh, amaguñu doole doole financière am nañ doole financière boobu mais dafa nekk affaire u état te dafa complexe moo tax duñ ci bëgg sóobu liñ ci bëgg def politique bi ñu ci bëgg def mooy dem ci ak ak ak teey ak kenn bañ ñoo tënk parce que am na ay at ci ginnaaw am na ay euh, ambassades yoo xam ne dem leen contacter leen mais Euh, xam naa ne war nga xam ñoom ni ñu doxalee mën nga ñëw ñu jox la un milliard bu ñu la ko joxee waaye dañuy teg ay conditions te conditions yi nga xamante ne ñun ñu ñu bëgg a teg euh, euh, borom axil bàyyi xadim daf cee jubluwul soxlawu ko donc bu boobaa ñun dañuy dem ak xalaat ak teey bu ñu demee ba xam ne conditions yi ñu bëgg posé alal neex na daa waaye nag Euh, borom axil bàyyil xadim loolu du du vision du bëgg-bëggam te te jub rek jub rek moo moo moo moo jik moo tax ba nga xamante ne sañu ñoo dem ci jël alal boo xamante ne sellul jën ñoo xalal al xam ne xamuñ fu mu jógee waaw mun na nekk ay fon perdus loo xamante ne duñ ko remboursé mais ba tey faaw ñu xalaat ko yan la fonds yooyu fu mu jógee ndax àdduna ak l'islam àdduna ak suñu diine àdduna ak suñu environnement ak àdduna ak bëgg-bëggu sëriñ bi loolu moo tax liggéey boobu foog ñu ñu ciy tey di ci def nang voilà voilà mu mel ne suñu caméraman mi ngi développement ku ko dégg ku nekk da nga xam ne tegu ngeen ci aw yoon macha allah sëriñ mi nga xam ne moo ko dégle jiitu jëkku ne xam na ne àll bee mu am suuf sa toj na ko wóoj ko andi ay tracteur fas fa yéene bay kon moom dèjà tàmbali na développement bi tàmbali na liggéey bi nga xam ne mooy jële ndool tàmbali na it wane ndaw ñi kenn ku nekk foo mën a nekk nga xam ne liggéey mooy dara liggéey mooy tax ak ndool jóg fi ko tàggatoo su nga defee li ma ci tàggatoo rek mooy projet bi sëñ bi teg nii mooy mooy euh, damay wax rek euh, buñ dem fen ndax lii lii li nu am nii kenn amu ko li sëñ bi teg nii li mu teg nii ñu bëri bëgg nañ ko tay amuñu ko ndax état bi même bu ci dënglee duggal loxom daf ñu ci fekk ci ndax sëñ bi tàmbali ma bëgg nak mbolo mi képp ku am sa kattan am doole nak ndaw bul dem fenn tagal taxawal nga xaar projet bi liggéey ci biir projet bi daan sa doole goreel sa bop bo bëggé fajj bëgg fajj sa bop bo bëggé jënd garab dem pharmacie jël sa ordonnance dem jënd ko yépp ci bir ci bir liggéeyu sëriñ bi waaw ndaw yi daal bu ñu dem ay ndakaaru di dem feneen ak feneen nañu toog ci dëkk bi lii bu ñu ko tàmbalee ci kanam tuuti nit ñi daañu teg seen bët di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan guddi gi suñu borom barkeel ko ci barke seen sëñ sëñ Modou Moustapha Mbacké di ci am yaakaar xel mu dal ndax guddi ñaan la ñu ngi tàll suñu loxo di ñaan waaw di sant nag suñu administrateur loo xamante ni mooy sëñ Mouhamed Lamine Bara di ko sant bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak lépp lu nga xamante ne sëriñ bi sant nag bëgg na ko ñu àggal kaa moom mu am ci résultat yu positif donc euh, wasalaam maa leen gërëm bu baax a baax jërëjëf. wasalaatu wasalaam ala sayyidina Muhammad bokk jullit yi di siyaare te di leen bala àq di leen bala àq seen mbokku sëriñ sëriñ Mbacke Gueye moo leen di siyaare baax a baax a baax te teew fii ci ndigalal sëriñ Mbacke Gueye sëriñ Mbacke Gueye di baax di faam sëriñ Ndiaye Gueye sëriñ Mbacke Gueye ak rakam sëriñ Assane Gueye dëgg sëñ Mbàkke Gueye ñëpp bàyyi wu ñu yàlla moo def ko sëñ Mbàkke Gueye ñaan suñu borom tabaaraka wa taala bu dee seen fan yëpp seen xéewal tey jii nag dañu fay ñëw teewal leen fi seen digal dañuy laaj ci mbirum jikko li ko li ci mën a wax tam mooy dama koy wax ci biir dama leen jikko ci la lépp nekk doomu aadama mooy boo xam ne nii jikkoom su baaxee mooy nga xam ne léppam baax na su jikkoom yàqoo mooy nga xam ne léppam yàqu na ndax mooy li nga xam ne nii moom la ñu woyoon yoon alayhi salaatu wasalaam kon damay wax ne lii itam loo fi mën a gis rek jikko ju baax rek gis moo ko waral mooy tax mu am jikko ju baax it doomu aadama lépp loo xam ne nii batal nañ ko ko dénk ko ko da tax war koo mën a matal mooy dafay nekk koo xam ne jikkoom dafay mel na mu war a mel loolu liñ ci jubla wax mooy ku mel ni Cheikh Mamadou li nga xam ne ni Cheikh Mouhamed koo nag la nga xam ne dénkaani woon na ko te matale ko la tax mu matale ko mooy jikko ju rafet yoo xam ne doomu aadama ju mën a doon nag say taxaw lu mel ni li ma xamoon bala ngaa tëdd waaye bu fekkee taxawaloo say taxaw boo tëddee doon kenn ko taxaw kon dafa mel ni Seexul Xadiim bi fi nekkee bi at bi fi bàyyi ko rek moom ku ko mën a taxaw ñu moom Moustapha ak ñi mel ni moom di garab tam a taxawalal ba ko sëkk mu doog a woon bidi boi doon ginnaaw loo xam ne ñu bàyyi ko ginnaaw dara suutut xat damu dara na war a mel teg ko ci loolu mooy li nga xam ne jikko bi rafet la jikko loo xam ne nii dañ ko yare doomu aadama ba loola moom nga xam ne dafay nekk koo xam ne nii mooy waral képp koo jaxasoo rek ñu bëgg la loolee nag mooy rafaatal ba jaar jaar ci Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñëw ci Serigne Mbacke Mohamed da ñëw Cheikh Mohamed Moustapha mii nga xam ne suñu borom teg na ko fi yal na ko fi yàlla yàggal te wéral ko ba lii nga xam ne tey jii mu ngi koy woote nu di ko di ko fi màggal yal na ko yàlla bàyyi téeméeraat yoo xam ne nii day teg maam rek ak wér ba lépp loo xam ne yéen na ko liggéey maamam bi yéen na ko liggéey ay maamu seen Cheikh Mbacke suñu Mouhamadou Moustapha ba ci Mbacke soxna loo way juróom ba suñu borom bàyyi ko fi ba muy liggéey ko liggéey boo xam ne nii dana ko we njort daal yëpp yàlla mën na ko yëpp yàlla mën na ko defal ci Moustapha ci barke suñu Moustapha tey jii nag loolu li ñu rek mooy sëñ Tuubaa li mu gën a gën a gën a gën a itteewoon bëggoon a defal doomu aadama mooy yar ko yar nag suñ ko waxee mooy nit ki lan lay yar ci moom mooy jikko nit di su yaru yaramam di su too yar ci tudd di su ko yar ci fi di su ko yar nit daal su ko yaree ban naa yaru na jikko rek a tax nuy wax kon jikko mooy li nga xam ne mooy li am solo ci doomu aadama tey ñii ma fi mën dajee mbooloo mi toll nii te xat dem mu dara yëngatuwut loolu yëpp dañ ko doon di koy rafet rek daf ñu tax jikko doon lu am solo kon kenn ku ne ci li ma war a am ku mu doon defal yal na ko suma borom defal yal na fi yàlla yàggal ko Cheikh Moustapha Mohamed wéral ko mboolem taalibe yi defal leen ko ba kenn ku ne ci li lay yéene liggéeyal ci yoon Cheikh Xaadim te jaar nga ci buntu Cheikh Moustapha Mohamed sun borom bàyyi la ñu di ko si njot jàng si la sax jërëjëf أصحاب الأنبياء وأبي الاعتداء وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ربك يسمي لسان الرأس فلا يملك الجيران على الغيب سجود يسجد كل كتب صديا يهدي علي يا هر المبن الدنيا laaj na nu loo xam ne nii danañ ci sawar a wax loo ndax bokk na ci li tax it yebal ci jotaay bi ndax mbir dafa mel ni su fekkee yaa ngi ci biir jaxasoo ca jaxasoo ñoom ñàkk di nga am loo ci xam ne da nga ko ca xam loo ca xam la may bari bari nag ñàkk loo xam ne ump na la ci nga xam na ci loolu moo na am na loo xam ne nii dund nañ ko ci waaye li ñuy am na ci loo xam ne mën na noom waaye li nga xam ne moom jot a xam itam lépp mënees na ko waxtaane waaye mën naa ba ne xet jotaay bi waaye liñ ci xamagul lépp rafet li nga xam ne nag moom ngay wax ni di ko laaj mooy nasuk seex si nan lay doxee ak liggéey bii bu amee nan lañ koy taxawee dama lay wax ne la su fekkee ne yàlla dogal na seexi daaru Xuddoos yi ñuy wax tey jii ñu aju si buntab Cheikh Mamadou Moustapha ñenn ñu aju ci seen Cheikh Mbacke ba ñëw ci seen Mbacke soxna Lo ñu aju si Moustapha Mouhamed nii tey jii yàlla na ko yàggal te wéral ko loolu dafa am programme am ay waxtaan am yoo xam des na ko def ndax it damay wax ne kurus. donte téeméeri per la la ca gën mooy nga mën leen a boole nekk na guub boo amoon mën naa tudd limab téeméeri per waaye nag mën nga koo tudde course waaye nag la tax ñu wax course defal ko mooy nosu bi da xam ne mën naa am seere tey ji nu téye ji mën a wër course gi te benn teet du wat te benn du mën a gis sama morom dootu nekk ci course gi rek nga bokk loolu la sëriñ bi bëggan doon ko ba taxan mu wutalal leen ab daayira boo xam ne nii boole woon nañ ko nu koy ànde ba tax na am na daje yoo xam ne dos na ko def lii nga xam ne tey mooy jëwriñu Seex Daaru Xudoos lu yàgg sosu la yàgg di dox nan ko doon doxee nag di ko programme mooy dan doon def sax ñetti yoo xam ne dañ daje waxtaani waat ci sëriñ bi jàng xasida jàng alxuraan ñaanal sëriñ bi dajale seen i addiya yëpp jëbale ko sëriñ bi loolu lépp nag li ci jublu woon ci gën a ñor sëriñ bi mooy booloo gi waroon a booloo rek mooy li nga xam ne moo ko ci gën a netteel loolee yàlla dogal na la ci ñu waxoon Moustapha jaar ci sëñ Cheikh Mbacke ba jaar ci sëñ Mbacke Mohamed ba jaar ci tey jii ki nga xam ne tey jii mooy sëñ Moustapha Mohamed loolee yàlla dogal na jaar na ci ay ay loxoy loxoy loxoy loxo ba tey jii yàlla dogal mu nekk ci loxoy alaaji sëriñ Mbacke gi xam ne yàlla dogal na ak wàcceeb liggéeyam àggagun ci ñeent fukki a nga ko ñeent fukki junni ñu ñaan suñu borom tabaaraka wa taala yokki leen njaboot sax te taas na ci barkeem doon na loo xam ne tam soo ko waxee fii rek bu ko mën dégg te bokk ci seex rek dina am loo yëg ci sa bopp ndax nii ma koy waxee donte ka du ma ko mën a waxee ni xam ne nii noonu la mooy li nga xam ne moo mën a dégg dugg ci noppi nit ñi dégg ko ndax li fees ci xol yi donte du lu lam na ñu tudd tam waaye su ma ko waxee rek tudd aw turam rek dina bari xol yi seex yu bari yu mu tàbbi loo xam ne li ma ci bëgg a wax su ma ko waxee xam nañ ko su ma ko waxut xam nañ ndax dañ koo bokk dund ko ba noppi ñu ma ma ci nekk ci kanam di xam la waaye wax dëgg yàlla la nga xam ne sëriñ bëgg na ko daal suñ borom dogal na am na ci nga xam ne nii mooy ak sëriñ Mbàkke bi mooy nosuk seex si seenuk ànd seenuk bennoo seenu booloo li nga xam ne tey ji am na itam mooy al aaj sëriñ Mbàkke Géey mënu ko joxoon dafa jëleen sëriñ Njaay Géey mi nga xam ne tii mooy doomam jël ko teg ko seen réew teg ko ci kanamam mu ànd ak ñoom ndax loolee itam nga xam ne sëriñ Moustapha moom ne lii ko ko joxoon al aaj sëriñ Mbàkke Géey dane koo xam ne gërëm na la gërëm naa la ku kon na ngeen ànd ak moom topp ko tiim waaye wax dëgg yàlla toppin wa rafet lool dafa mel ni bu ko yëkkatee teg ko ci loxoom mel ni mbooleem Cheikh Darou Khoudoss yi nga xam ne moo bokk bu téye ko ñoo ko gën a bëgg ëpp ko ci yéene di ko ci jàppale seen kéemtalaay kattan di rafet liggéey bi seen kéemtalaay kattan la sëriñ bi bëgg nitam mu am ko ci mooy booloo gi ak nasoo gi ak ànd gi ak déggante gi ak jàppalante seen lépp di benn tey jii mën naa ne la bu nee tamxarit tey la ba ca suba ga la sëriñ Njaay ñëw fi ànd ak mbooloo mbooleem seex si nga xam ne tey ñoo fi nekk bu yàlla sa saa yu xëyee fii la ñu ñëw yend ba ngoon ànd koog moom yëkkati seen addiya yëpp dajale ko teg ko ci loxoom addiya dafay doon mën na nelale dale ci nag jaar ci xar ba jaar ci béy jaar ci ginaar xaalis bépp dugub ceeb ak cere lépp a ceeb lépp ñu koy jël dajale ko teg ko ci loxo Serigne Ndiaye Guèye moom moom itam su ñëwee noonee nga xam ne ne lay ñëwee kenn ku mën a doon la nga fa donte génn ab dërëm la wala donte aw nag la ak lu mu doon dees na ko bind ci këyit daal di diw moo fi leen di joxe ko ci bisab sëñ ngir màggal ko muy màggal maamam muy ñaan loolee itam suñu borom ko su noppee noonee muy ñëwee. ni leen koy jëlewaat di ko séetale ci buntu kër Serigne Mouhamadou Moustapha yi ak mbooleem keneen koo xam nekk nga ci dëkk am na ñeneen ñoo xam ne nii donte ka ci Mbàkke gi lañ bokk nekk ci dëkk bi ak ñu sant la nekk ci dëkk bi muy Bousso muy Fall muy Mbàkke muy leneen ñu mën a doon kenn ku ci mën a doon la nga xam ne nii moo cay ak nga war a ñëw cëw na ko yëkkat teg ko ca def ko ci liggéey Moustapha Mouhamed ma nga xam ne tey jii loolu lépp da nga koy dajale mu yëkkati war ko amul ci dara loo ci xam ne nii dana ci ne nangam def def sàngam boo xam ne moom lu mu mën a doon dañ koy delluwaat ci jullit yàlla yi nga xam ne moom dëkk bii noonu lañ ba mu jeex dundaat ko jël carnet boobee jébbal ko ko mu xool ko noonu xam li fi dugg xam nam duggee xam nam génne lenn lañu xam fa ko dugal loolee mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi bëggal te it dañuy wax ne chaque lépp lu mën a doon bu fi ñëwee nan seet nekk ci dëkk bi te yeyoo ko ñu yëkkati ko jox leen ko noonee lañ koy séddalee ba dara loo ci xam ne ñu fi nekk wax dëgg yàlla yàlla ñu simb dinu dimbali saa yu nu xëyee mën naa ne la la dalee ca tamxarit ba ci ginnaaw suba fi may yow bët bu yàlla sàkk ay mbooloo danañ fi daje ñoo xam ne kenn ku ne ci dangay ñëw di sàkku te képp koo ci xam ne yàlla dugal na nga dugg ci kër gii sàkku si fa ndimbal mosoo delloo neen boo fi duggee lépp loo ci xam ne ko fi la nga xam ne moom sa wërsëg dana ko yëkkate ko sa lépp luñ ciy nu ko ndigal loolu ak Serigne Mbacké Gueye mu jox ko Serigne Mbaye Gueye mu ànd koog moom mel nañ toppal suba ga moo ko Assane Gueye rakkam ak yeneen rakki dooy waaye ñoo ànd ñëw fii ci ndigalal magam nag sëñ Mara Gueye ndax ginnaaw bi nga xamee ne bàyyam bàyyi koo na fi keroog bi mu ñëwee dana magam sëñ Mara bokkatunu ndey bokkatunu baay bokkatunu lenn loo ci xam ne nii tey jii waxatuñ sax sa taal bi moo gën taal nekk sa jàmm nam ko waxee nag mboolem ànd ak nag doon bàyyam yëpp yëkkati loolu def loolu Serigne kon loolee lu mu ci di rek mu ma koy def ci ndigalal Serigne Mara waaye Cheikh si daal na nga xam ne sëñ bi si li nga xam ne si Moustapha Mohamed bëgg na ko suñu borom ale suñu borom dogal na ko suñu borom tabaaraka wa taala dogal na ko ànd nan déggoo nan juboo nan liggéey bi bi ñu ko def Serigne Mbacke ñëpp ko jàppale